ça va bi na nga def. ça bi naka la. Momar Diagne. Momar en tant que jeune tey euh, nga gis li nga xamante ne si moom la tendance bi nga xamante ne si moom la jeunes yi jël def ay immigration irrégulière naka nga ko jàng hmm, jeunes yi dañ amul pexe rek ñàkk pexe rek dañ xool xam ne ne lii solution la pour war a mën a dem jéem a am vie bu stable pour teral seeni waajur moo tax ñuy jéem a def émigration clandestine pour réussir rek mais. jëlewu ñu ko pour dem pour dee kenn ku xamoon boo dem dangay booy dem da ngay dee doo dem. est-ce loolu mu ngi sa xel. man non mu ngi woon sama xel waaye bi ma gisee Seydina Ousmane Seydina Ousmane Sonko mu sell bi loolu deñ na suma xel nekkoon na suma xel mais en deux mille vingt Seydina Ousmane ñëw na fi waxa jeunes yi image yaa ngi si réseau sociaux bi ay waxam du jog di conseiller jeunes yi li ñu mën a xeex. ba am ko bitim réew bu ñu ko toogee sunum réew xeex ka yàlla mën na def ñu am ka te des na tuuti lii des bëreetul d'ici deux mille vingt quatre na jeunesse bi muñ rek ñu toog jàpp dina baax incha allah. ministre de la jeunesse bi nga xamante ne si moom lañ fi tekk ndax moom jàpp nga ne liggéeyam mu ngi koy def ni mu waree parce que nag bu yàggul dax lancé nañ euh, benn kii. pour employer des jeunes est-ce que tamit sensibilisation bi ak information bi ni waxoon a jàllee ba ndaw si ba ndaw ñi eh, jot si est-ce que tamit loolu egg ministre de la jeunesse o ministre de si bokk ñoom ñëpp defuñu le travail qu'il faut si plateau yi la ñuy nekk di débat lu ñor ñu wax lu ñorul ñu wax liggéey bi war defuñu ko jeunesse fii ban jeune lañ fi emploi nañ ñu génneel ñaata emploi des jeunes moo fi am fii bu emploi des jeunes amoon jeunes yi toog liggéey fi kan mooy gis travail fii di dem si gaali clandestin ne da ngay dem li leen war lañ deful nañ bàyyi plateau yi ñu génne ñu liggéey dañ leen dénk dëkk bi pour ñu liggéey nañ bàyyi télé yi ñu toog di wax di dàgga sante Pape Malick Ndour joxuñu ko ministre de la jeunesse pour dàgga sante loolu laa am lu ma koy wax moom lu ma si dolli jeunesse bi nañ toog 2024 ñëw na ba pare Seydina Ousmane Fallou clandestin jë si réew mi ñu liggéey suñu dëkk au contraire ñiy demoon dinañ daw dinañ ñibbise xam nga ne bu toogee loolu dina fi mën a jóg. bu toogee clandestin mooy jeex yemul ak ñoom soxna si man maa la wax loolu 2024 bientôt focus 2024 mu yor réew mi clandestin jeex. nga nga jàngatee li nga xamante ne si moo xew jamono ji mu immigration clandestin yi. ah immigration clandestin yi xale yi nag ñoo yey dëkk bee metti da ngay jàng ba yor sa bat yor sa diplôme jàng ba sonn nag laa la mën a wax génn doo am liggéey. xale yi ne fii taxawaalu mool yu xale yi mool yu bari am nañ seen seen seen licence seen i kayit te mënuñoo am liggéey ku amul liggéey na am sa jabar am sa yaay war koo teral ak sa papa te amoo loo ko terale foo nga dem uti loo ko terale réew mi nag fi mu toll moo metti Sénégal moo metti trop yéen xam ngeen ci dara waa Dakar Buzz dëkk bi metti na xale yi sonn nañu moo tax ñuy dem rek ci gaal gi ne leen lu leen yàlla may ñu jël a ah, xëy na nag yàlla mooy dogal lii waaye itam euh, navire bi leen di kar ci biir géej gi war na bàyyi xale yi ndax ñoom accident yi bari ñoo koy indi te loolu baaxul loolu du solution nit soo ko gisee ci biir géej da koy arrêté bu mu taxaw nga laaj ko lu foo jëm ak lan la su ko defee accident du am mais yii yëpp ñoo koy ñoo koy ñoo koy provoqué ñoom yëpp ñoo koy provoqué te loolu du yoon xam nga doomu jàmbur yi dee ci géej gi lor nañ seen waajur metti na torop ñun ñëpp ay jaboot lañu te ku sañoon boo xëy sa suba sa doom a lay jox dépense waaye nga xëy suba jox sa doom dépense dafa metti xale itam mënatuñoo supporter loolu moo tax ñuy dem ci ci gaal yi di butul jox seen waajur loolu dafa metti soxna si man géej gi filaa laa juddoo fi laa yaroo sama xaru ngénte sama pap fii la ko nappee ci géej gi yaay étage be ci géej gi la jaayee jën ba jënd ko kon nga xam ne man fii laa dëkk xale yi ñoo sonn suba goo xëyee signé juróomi bato jox ba juróomi bato licence waa xale yabay amatul ci réew mi jën yi seer na mool yi sax amatuñu jën ndawal lu ñu ndaw loo sax amuñu ko dañuy gëti ba teer du ñu am ndawal dañuy gëti ba teer du ñu am ndawal lu ñu yóbbu seen kër loolu metti na waa léegi nag boo gisee gaal goo dugg bu yóbbu la Espagne réewu tubaab bi lu mu mën a metti metti metti moo tane senegal moo gën senegal téeméeri junni yoon du benn sax lu mu metti metti metti moo gën Sénégal waaye Sénégal nañ dimbali xale yi sonn ñu ci naka la nguur gi war a mën a dimbalee ndaw yi. bari na wutal leen liggéey tool yi ñuy wax naan moom la ñuy dem fekki Espagne fa liggéey bu ñu woon tool yi ne ci Sénégal gi xale yi toog fi liggéey ba ñu ñoo liggéey waaye xale yi amuñu fu ñu aw ku amul foo aw na foo nga aw ma ne Sénégal moo metti na leen waxante dëgg xale yeey yeey man su ma doon góor toll ñoom damay dem ci gaal yi lu ma may ma jël waaw lu ma yàlla may rek ma jël. su ma tolloon ni ñoom jamono yi danaa dugg ci gaal dem lu ma yàlla may ma jël su ma dundee ba xam ne yàlla su ma dee ba xam ne yàlla la. Euh, wàllum gi sax nag responsabilité yi euh, selon yow kan ak kan la. ñi nga xamante ne si ñooy organiser voyage yi euh, nguur gi wala sax parents yi nga xamante ne si ñoom am na ñenn ñoo xamante ne si dañuy yëg ni ñoom seen doom dañuy dem. déedéet fii mu nekk nii nag ku fi sa doom di dem doo ko yëg ndax xale dañuy nëbb seen i waajur kenn du ko yëg te ñi koy tëgg fii kenn du leen xam man de dëgg yàlla fi laa juddoo yow daf xaw ma leen sama dëgg laa wax dëgg yàlla xaw ma leen. su tam ñu teg ay daan ñi nga xamante ne si ñooy yóbbu ndaw ñi parce que ñoom nag dañuy encaisser seen xaalis ba pare nag daal di toog ne ndaw ñi dem ñu ci bari di si ñàkk seen bakkan waaw yàlla loolu la dogal ku nekk fi nga war a dee fa dee fii ma toog ni di jaay su yàlla ne woon fii laay des fii laay des loolu dafa jiitu sunu juddu yàlla foo war a dee fa ngay dee amul doo ko weesu ci àddina est-ce que yaa ngi may dégg loolu ndagalu yàlla rek la xam nga ku sañoon yaa ngi dem di wuti xam nga yow yaa ngi ne di liggéey na ci naaj bu tànga bi boo sañoon heure bi boo añi pa da sa kaw lal du seetlu waaye sañoo ko ndax da yor say waajur yor sa soxla yow foog nga lijjanti say soxla dimbali say waajur moo tax nga nekk ci naaj bi di daw ku sañoon boo añee pare su ma añee pare man damay tëdd sama kaw lal bee wéer sama wet waaye defuma ko maa ngi toog fii ci naaj bi deux heures mooy fii la ma fekk ma toog su ma sañoon tëdd sama kaw lal naan samay sedd sama ventilo di ma ëpp wala sama kilim xam nga loolu dafa neex waaye nag boo ko defee doo lekk soo ko defee doo lekk doo naan réew mi toj rew mi daal dakaar bës war nañ cee wax Sénégal métti na métti na torop ko añ doo reer waaw ku reer doon ndékki fi mu ne moo fi am bu dee fonde yeeg fonde cere yi ñu ngi bëgg a rey xale yu góor yi cere yeeg fonde yaa ngi bëgg a rey yi ndax dëkk bu métti dëkk bee métti nag dañ leen waxante dëkk senegal métti na trop yéen yéen a gën a xam ne Sénégal métti na ba tey ba suba su ma gisoon gaal damay dem sama tey ba suba su ma gisoon gaal damay dem mës nga dem yow kan mosuma dem te ragalu ma ko de damay dem nag incha allah lu nga bëgg a dem temps bi naa fa lu fi am lu fi am laaj naa la ko damay dem. <laughs> tur bi naka la. Mohamed Diakhaté la. Mohamed ñu bëggoon a xam yow ban jàngat rek ngay def ci li nga xamante ne si nag mu wàllum immigration irrégulière te ndaw yi nag daa koy faxal di jël ba sax yu ci bëri daal ci ñàkk seen bakken waaw immigration clandestin bi moom wax dëgg yàlla doon na lu yé doon na doon na loo xam ne nii lu yéeme la quoi franchement et je pense que ne wax dëgg yàlla pour man. Euh, xale yi dañoo war a toog seen dëkk donte dëkk bi métti na tey boo gisee ñoom ñuy sacrifié wu di dem di dugg ci géej gi di dem Espagne je pense que ne dëkk bu métti moo ko waral waaye loolu warul tax ñoom ñuy sacrifié wu parce que ku ci nekk gis nga ne géej gi ñu bari ñu ngi ciy dugg am na donte am na ñoo xam ne ni ñu ngi yegg mais ñi ci dee ñoo ëpp kon je pense que ne risque la. jóge fii nii di jël gaal di dem Espagne wala quelque chose comme ça quelque chose comme ça wax dëgg yàlla man de ci sama xalaat bu gàtt tukki jaru ko quoi franchement donte dëkk bi nag métti na moo tax xale yi di jël gaar bi di ko def mais nañu toog ba gis yoon boo xam ne ni yoon bu leer la ñu dugg ci dem ci jàmm loolu moo ëpp njëriñ quoi franchement ñu gis ne ndaw yi eh, dëkk bi eh, à chaque fois boo leen laajee dañ naan dëkk bi dëkk bi dafa metti dafa metti est-ce que tamit jaaxoon suñu ay autorité suñu ay njiite ñu xool ñoom naka rek la ñu war a mën a def ba ndaw yi mën a toog ci réew mi liggéey. waaw xam nga loolu boo gisee ndaw yi di bëtt di dugg ci gaal yi di dem Europe suñu njiiti dañ cee am part de responsabilité bu rëy parce que part de responsabilité biñ ci am mooy eh, Sénégal daanaka ñi ci ëpp ay ndaw lañ. et je pense que ne affaire géej gi pour mbëkk gaal gi li ko li ko li tax mu mën a rester mooy gouvernement bi def ay usines yu bari yoo xam ne ni peut-être ndaw yi dinañ ko gis parce que ndaw yi Sénégal bëgg nañ liggéey mais dañoo gisul liggéey nañ waxante dëgg parce que fii lañ juddoo fii lañ yaroo fii lañ màggee ba toll ni ñu toll Sénégal ni muy doxee ku ne xam na ko mais état bi ci boppam ñoo jàppalewul ndaw yi loolu mooy loolu mooy dëgg ko franchement et je pense que ne su fekkonte ne nii ñoom. def nañ li leen war ci ndaw yi ndaw yi duñ jël gaale di xaru ci géej gi quoi franchement. responsabilité yi est-ce que tamit est-ce que état bi kese la est ñi nga xamante ne si ñooy ñoom ñooy euh, organiser voyage am nañu ci responsabilité ak parents yi ak ndaw yi. waaw je pense que ne responsabilité c'est partagé quoi tu vois parce que ki nga xam ne ni moom mooy jël xaalisam di dugg ci gaal gi kooku tamit kenn ëpp ko ci responsabilité parent yi boo xoolee ñi ci ëpp duñ yëg seen doom ñu ngi dem ci gaal yi. parce que parent boo xam ne ni wax dëgg yàlla mat nga li nga war a mat sa doom du ñëw ne la damay dem jël gaal yi nga di ko bàyyi muy dem di dugg ci gaal yi kon parent yu ci ëpp duñ ko yëg xale yi ñoom ñooy jël seen responsabilité def ko te parents yi duñ ko yëg man ci sama xalaat bu gàtt quoi tu vois mais boo déggee ñuy wax état bi parce que Sénégal moo bindoo noonu tey je pense que ne jeunesse bi nga xam ne ni ñoo ne Sénégal te liggéeyu ñu ñëpp koo ci wax day jël affaire bi wékk ko ci état bi sénégalais yi jeunesse si bëgg nañ liggéey mais dañoo gisul liggéey nañu waxante dëgg parce que tey boo génnee town fii nga xool ci tali bi nga xool xale yi rek ñoo ci nekk di daan seen doole est-ce que comprendre kon je pense que ne ndaw yi Sénégal bëgg nañ liggéey mais dañoo gisul liggéey état bi tamit peut-être mu ngi def effort mais pour man effort bi dafa des quoi franchement waaw. Euh, pression sociale bi tamit parce que da ngay nekk ndaw nekk ci amoo yenn mooy papa yaay ñëpp ku nekk di wax loolu tamit est-ce que du si joué. waaw pression sociale peut-être man je me dis que ne nit ki ku nekk sa bakken nga yor man ci sama xalaat bu gàtt mooy pression sociale lu mu la dal dal dal dal du ma dugg ci géej naan damay dem di di tenter chance bii gañ bii perte. ci loo xam ne ni yow leer na leen boo ci duggee à quatre vingt pour cent mën nga cee faatu kon lu ma am am am pression sociale du ma jaral man. may dugg ci géej di dem di franchement di di mankaani ji quoi waaw loolu moom je me dis que ne problème de esprit la rek quoi parce que man sama xel moom sama juróom-ñaari xel traversé wul may jël gaal loo ci di dem Espagne quoi peut-être nag ñi di ko def du leen peut-être problème de esprit la quoi seen xel moom moo toll foofu duma leen blâmer ci loolu quoi waaye nag mooy loolu daal doy na waar. lan ngay wax euh, ki nga xamante ne si mooy ministre de la a jàppale ndaw yi. waaw ministre de la jeunesse li ñu koy wax lenn rek la li nga xam ne ni moom lañ ko fale na ko motal peut-être buy def benn na na ko yokk bu ko defee jeunesse bi li nga xam ne nii gis ñu ko Sénégal peut-être ñoom ñu ngi koy gis ci yeneen i réew ba mu leen di jaral si ñuy sacrifié wu di dugg ci gaale di dem peut-être état bi bu ci defee ni mu ci war a def yokk li mu doon def tu xale yi dinañ toog liggéey man loolu laa gis quoi franchement. Euh, Pape Mamadou ñu bëggoon a xamaa ban jàngat nga def ci li nga xamante si moo di wàllum immigration clandestine. waaw immigra euh, immigration clandestine bi day wax dëgg yàlla yàgg na fi du fi tey quoi bon xale yi moom dem nañ ba amatuñu espoir nag loolu mooy waral ñi immigré parce que bu fekkee ni démb mboon da daan daw vingt ki vingt kilomètres wala dix kilomètres am teraangaam Ah, dimbali ay waajuram dimbali boppam ba am lu mu denc mu dem ba mool amatul mënatul sax faj soxlay boppam waxatuma la soxlay waajuram ah loolu mooy waral nag ñu fàq di dem parce que li ko waral tamit moom mooy contrat wu bato yi bari na benn xeetu bato benn xeetu bari boo xam ne ay contrat yoo xam ne doo doo comprendre la ko dalee ca biir géej ba presque ci teer teer bi ci dix kilomètres bu guddee boo taxawoon fii da ngay gis fii yëpp ay làmp lay doon te lépp ay ay bato la bato yooyu moom mooy indi day dem ba mool yi li ñu doon suturoo ressource halieutique boobu dañ koy tibb di yóbbu surtout rawatina mu am ci ay bato yoo xam ne sax ay bato industrie lay doon bato bi mun na mbaal vingt jours mu am bato bu mag boo xam ne day ñëw mu sottil ko ko ci géej bato boobu départ dem Europe moom mu continuer mbaal bu ñu mbaalee jën yi nga xam ne soxlawuñ ko dañ koy xëppaat géej rey ko yàqu ko ñoom on s'en fiche parce que amuñu contrôle bu leen di contrôler day dem ba géej day dem ba tollu moment boo xam ne na géej gi day dee gars yi dootuñu ci mën a am dara luñ ci lekk dootuñu fu ñu am ñu naan mais mon vieux ñu gis lii mu nekk benn occasion boo xam ne dañ ciy dañ ciy profité dem loolu mooy andi affaire immigration clandestine bi parce que mool da daan teral boppam teral ay waajuram denc xaalis bu demee ba mujj gi muy daw ci ceeb ak diw sax ceeb ak diw bi di manqué. mais kooku kenn xamatul ci ban dëkk ngay bugg a dund te nga nekk fa ponkal bugg fa tekki ah am jom ñoom du lenn nag la faute à kii moom mooy moom mooy état du Sénégal la parce que même bateau yi ñuy signé ci géej gi ñun dañ koy xam xam ñaata bateau lañu lañu la ñu signé yooyu du doon problème mais contrat fictif yi nga xam ni mooy am ci biir nga gis benn benn autorité bu am doole bu dem Chine wala nga dem Japon ah fekk fa benn compagnie boo xam ni presque compagnie bi nappatul dee na nga ne ko mun naa la topp toppatool contrat Sénégal contrat Sénégal boobu boo ñaata lay doon nga lijjanti ko ñëw andi ko fii ñu signé ko ci ci oyof seen oyof signature yooyu bateau yooyu mot nañ plus de nombre de deux cent ñu ngi ci géej Sénégal di napp day dem nag ba mu gi ressource halieutique bi kenn dootu ko jëriñoo ñoom ñoom ñoo koy jaay te vraiment boo xoolee ba ci biir sax yenn yi sax affaire yu ñàkk jom la nga am benn jeunesse boo xam ne jeunesse bi dañu dañu nangu dañu nangu liggéey man mii di wax ak yow nii ñëw naa fële di jaay jën mais am ku ma bu fay ma prix ma di ko jol mais dafa ma daf ma wu ne moo man étudiant la te bu tey jii bu ñu bu ci kanam tuuti boo demoon fële moo wan fa ay étudiants yoo xam ne ñi master lañ nekk ñi phase terminale mais dañuy dem ba yor seen i liggéey sa di ñu liggéey dañuy obligé ñëw ci tefes gi di jën di jaay ñun fan lañ jëm nga am jeunesse boo xam ne jeunesse bu am jom la jeunesse bu nangoo liggéey ba pare jàppaloo leen ci dara naan ay 6000 emplois par an te ñu gis du ñu gis sax lu mat cent emplois par an mais jeunesse bi bu ñu demee c'est normal c'est normal immigration clandestine bi loolu rek moo ko indi dañu jàppalewul xale yi seen xale yi pour ñu liggéey ay xale yu ndaw yoo xam ni yow yaa ngi am presque soixante quinze pour cent ah boo xam ni jeunesse la ah moyenne d'âge vingt à quarante cinq ans ah mais ñooñu da nga leen di jàppale ba pare ñun ñu nga am jeunesse boo xam ne jeunesse bu am jom lañ tamit nangu liggéey yow yaa ngi ci mbedd mi journaliste nga da ngay gis ko am say këyit am sa ligaasa war a liggéey looy jaay xeebatuñu jaay café Touba xeebatuñu jaay écouteur xeebatuñu liggéey ci chantier yi xeebatuñu dara mais jeunesse boobu amee jeunesse bu mel noonu da leen di jàppale mais nekk wuñ fi dara lu dul tëdd jaay mais bu fekkoon ni tey jii ñoom bato li muy jar mais seerul bato bu ñu armé ba pare mu war a napp seerul trente et quelques milliards la ñu la ñu wax au maximum mais boo ko jëndee boo jëndee quinze bato wala nga jënd vingt bato bàyyi ko ci géeju Sénégal au moins nga jël peut-être euh, artisanal yi ñu dugg ci bateaux yi forme leen ñuy liggéey yow ngay ñëw di jaay Sénégal jën wi bu ñu Sénégal doyalee nga jël jën wi jaayewaat ko Europe moo ëppoon bénéfice nga jël gaa gi jaay ko jaay ko asiatique yi jaay ko européens ñu ñëw di napp nu mu leen neexee géej gi amatul dara loolu moo waral nag booy di fàq di dem parce que amatuñu espoir problème bi euh, yaakaar naa nekkul kase ci wàllum géej gi parce que boo xoolee ñi nga xamante ne si ñooy dem ñu ci du ñu ay mool duñu ay nappkat. voilà très bien boo ñëwee ci nee naa la gis sànq dama la junjal ne la gis naa sax ñoo xam ne dañoo duñu ay mool mais dañoo jàng ba yor seeni licence wala liggéey ah liggéeyuñu dañu obligé di wàcc tefes am jom. pour di jënd jënd di jaayaat pour wala di dem jaay bagage wala dem jaay café loolu la waa kooku nag bu demee ba coono boobu muy am bu xalaatee ne bu demee dina am lu gën a yomb loolu ñooy kooku day risque laay fam day dem lu mu ci am baax na affaire bi noonu rek lay demee boo demee mbéy mi baaxatul mbéy mi ñuy wax ni baaxatul ñu ngi jël euh, teer yi di ko jaay ay ay ay promoteurs yoo xam ne dëkk fi sax jox teer yi ñu koy béyal seen bopp di yóbbu ah ñuy béykat yi nekk fi di am problème jeunesse su béykat boobu yëpp ñëpp ñu ngi ndakaaru kenn kenn umpalewul ni ndakaaru Sénégal li douze million d'habitants yi yëpp tey boo doon wax danga nga naan da nga naan neuf millions ñu ngi concentré Dakar lan moo ko waral parce que àll bi am amuñu luñ liggéey mbéy mi fexe nañ ba rey ko mais occasion yi mel nii tamit amul mool yi amul dara ñëppay ñëppay soobandoo ci affaire bi dem parce que danga naan boo demee moo tane problème bi loolu la. situation wàllu loolu yàgg na fi depuis jamonoy Abdou Diouf ba léegi tey jii ban ba yan plan d'action la ñu war a mën a teg ba loolu daal di fi wala sax mu wàññeeku. waaw xam nga. xam nga nit nit da nga koy da nga koy da nga koy dig dara di ko won lu koy amloo espoir boo taxawee jël réew mi ne naa fi def six mille nangam emploi sept mille nangam emploi par an ñuy yaakaar ñu sax benn wax wala waxatuma la gisuñu sax trente kooku yaa ngi koy découragé loo mais bu fekkoon ni tey ji dañoo dañoo woo jeunes yi ah financer leen accompagner leen wan leen yoon yi mais dinay am mais day nekk ay ay ay financement yoo xam ne bon politiquement lañ koy def ni bon wane ko ci tele yi karab karab après bu bu paasee foofu pare nañ ci nga gis jeunes yi nekkaat ci la ñu nekkoon mais nañu nañu dëggal seen nañu nañu nañu xam ne ñoom jeunesse bu am jom la ñu am li ñuy li ñuy politiquer ñu jël politique bi teg ko fële jéem a liggéey réew mi te liggéeyal sa jeunesse defar sa jeunesse bañu toog sa réew bu ëllëgee loolu moom mooy si réew mi mais bu fekkee ne da ngay yi ba xale yi di décourager mais nii rek nii rek lay andi nañu fexe jàppale xale yi financer leen wan leen yoonu liggéey accompagner leen mais bu fekkee ne dañ koy def politiquement wane ko ci tele yi ñëpp ne ah ñu ngi jàppale jeunes yi après bu jeexee pare nañ ci continuer seen politique loolu moo tardé réew mi waaw. xam nga rek. tur bi naka la. yaay Arona John. waaye yaay Arona John Touré. naka nga ndaw yi nga xamante ne si jamono ji dañuy jël gaal gi di dem ba ñu ci ba di si ñàkk seen. waa jamono yi. réew mi dafa nekk réew moo xam ne fu mu nekk nii dafa doy waar yam rek boo gisee xale yu bari saay yu fay dem puisque amuñu saa yu liggéey en plus de ça aussi da am ay benn benn yoo xam ne yi dañu demoon foofu saay yu réussir ñëw fi am fi kër amaat fi saay kër dem di ñëw saay di tekki xam nga yooyu nag say morom buñ ko gisee aussitôt man tam dañu obligé maanaam saay maanaam pour dem tu vois dëkk bi léegi saay li yàlla xam doy na maanaam dafa wow suñu géej gi léegi sawaay mu nekk léegi li yàlla xam doy na dara amatu fi yaa ma dégg en plus de ça aussi yaboy bi ñu dese woon sax léegi sabaay kii nañ ko chinois yi ba yaboy léegi sax moo dañu bu njëkk ba da ngaa gis sabaay tam tam nga kii sabaay bu ngoone nga am sa deux cent franc cere wala cent franc cere nga kii sa quelque yaboy ana wala musique nga am loo rey mais léegi saa yi loolu amul léegi boo demee marché pour nga gis yaboy sax problème la ay ñetti yaboy mille franc wala benn yaboy ay benn yaboy cinq cent franc loo xam ne dañ ko daan kii ay benn vingt cinq franc kii ñetti cent franc ah? ah léegi dëkk bi sawaay da ngay waaru gi léegi daa da ngay waaru la majeure parti ñu bari saa yu mool yi am na gaal yoo xam ne yu bari léegi amatuñu mool léegi ah puisque ñu bari dem nañu tu vois en plus de ça suñu xaalis yi moo des am valeur yaa ma dégg boo demee boo amee fële cent franc foo boo boo ko indee fii maanaam triple bi lay doon yoo nga xam ne kii sa morom la yéen a fi nekkoon saa yu dikkee yooyu mu jékki-jékki saa yu dem fa ay ba ne quelques années mu ñëw fii saa yu liggéey fi ñaari kër ba ba ne ba si ñetti kër ma loolu moo tax muy influence xale yi maanaam ñu dem ah la nan rek lañu nan rek lañu war a mën a def uh, ba situation boobu jóge fi. ba situation bi saa jóge fi ba pare en plus de ça aussi maanaam dund bi léegi dafa cher. papa nga ne doo dem si géej non fi mu nekk léegi su mu nekk saa yi mag paa ne mag laa fi mu nekk léegi parce que presque ne presque soixante quinze ans presque tu vois waaw mu nekk léegi mu nekk damay tenir nii rek maanaam di saxal nii rek mais mu nekk nii xale yi ma xale yi ñi nga xam ne seen avenir saa yu suba la yooyu ñu gis seen morom yi saa yu ah te ñoo xam ne ñooy yarandoo sa waaye wala ñeneen sax yow yow yaa leen a am yow yaa leen di gën maanaam am loo xam ñoo amuñu ko si métier ñu dem saa yi di tekki ah di bàyyi dem fële saa yi di tekki ñoom tey bu ñu gisee loolu dañuy essayer aussitôt maanaam pàdde maanaam pour dem pêcheur yi léegi la majeure partie. tey boo gisoon xale bi dem da nga koy tere wala da nga koy. waaw ah, non non kooku nag kooku nag kooku nag mënu ko saa kii nag ak kooku sa waay mënu ma mënu ma ko mënu ma ci wax dara rek quoi kooku waaw dama mënu ma ci wax dara chacun chacun son soirée quoi oui. fii Soumbédioune amul ay gaal yuy jógee fii di dem. non non non non fii nag saa yi kiiwu ma ko nag non non non non déggu ma ko nag dégg na déggu ma ko ok bien sûr bien.